moo di ca Mbour jàpp Adrien Senghor diggante samedi euh, jàpp dimanche ba ci altine gi euh, di ay journée bi nga xamante ni daal ab euh, lutte simple la woon yaakaar naa ni sax dañuy daal dem ba pare fi nga xamante ni moo di ca Mbour foofee nga xamante ne amoon na ab lutte simple ñun nag wax bi du bëri mm. dañ leen wan li nga xamante ne moo di qualité image li nga xamante ni génne nañ ko si biir Oeil du pàcc rek bu ñu jot a génne mais ñàkkul incha allah ci ni yaatoo si si yeneen jotaay di ngeen gis li nga xamante moom la leen doo kon boog ñu daal dem ca Mbour ñëwaat nga jëm

ku daan première place am nga 500000 ku daanu 260000 quart de fi euh, troisième place am nga 50000 quart de finale 10000 huitième de finale 5000. Euh, kenn mënut a lu poids léger yi toll encore fu nekk nii nag maa leen di ak euh, tambour major Mor Ngom ak Mbayang Loum ñu dem ba kanam seetaan lu xew. Saalu jo euh, Saalu Jon Ngal jël na ko Ngal Jon jël na ko Ngal Jon jël na ko Ngal Jon daan na ko jël bu set wecc assurance jël na ko assurance war na ko ndëbu assurance daan na ko assurance daan na Adiya jël bu set wecc Jor Jon jël na ko Ali Mbaye Fall am na ngeen ba tey oh, Ali Mbaye Fall daan na ko jël bu set wecc Ablaye jël na ko Ablaye jël na ko Ablaye jël na ko daan na ko ak Ali Diouf na ko oh! Ibrahima Ndour Fatick jël daan na ko jël bu set wécc Sélémélé campement l'an 2000 Sélé dem na Sélé jël na l'an 2000 Sélé oh Sélémélé daan na l'an 2000 jël na bu set rek rek mboot naan nga jël mboot mboot moo xam ne kenn mosu koo gis. Boy Faye Dakar daan na Fodé Sarr Palmarin. Émile Émile François Gomis jël ko Émile François Gomis jël na ko Émile François Gomis jël na ko Émile François Gomis jël na ko Émile François Gomis daan na ko jël bu nañ. booy fay na kuy dem waaye demut ah Reug Reug daan na ko jël bu set wecc Sélé Reug Reug Sélé ca ñetti at bi léegi ma nga ca bi balaa temps jeex. Sëlëmele Sëlëmele profite occasion balaa temps bi jeex.

ñu naan léegi sa kumpa fay Mamadou boo tey dara xewagul. ah jël na ko oh Seeku ba fay daan na ko jël bu sa différence de poids caxabal ba Mamadou démérité wul nag parce que bëre na bëre normal. Mamadou Moustapha Sène Sélémélé Kampoma ak euh, Abdoulaye Wilane Ndoye Libidor bu Grand léegi nag ñaar ñi ñoo war def comme euh, final jóge nañ ci pause deux minutes ñëwaat arbitre bi si loon na diggante Sélémélé Kampoma ak Libidor Grand fan la stade municipal Mbour. waaye final ba ko bugg a saboté parce que ñaari mbër yoo xam ne kenn deful action mel noo xam ne dañuy contact boo xoolee ba xool nu mu tudd li bi door grand mbooloo Mamadou Moustapha Sène Sélémélé grand mbooloo do Sélémélé campement grand mbooloo kon i and ay ñoom ne waa ke parce que li ten jangu ñoom ne par point ñu ngi woon fii Mbour lamba ji jeex na diggante Mamadou Moustapha Sène ak Sëlëmale Campement ñoo doon def final mooy eh, mbayang lum la woon tëggkati Mor Ngom kan moo tegoon lamba ji Luc Nicolaï moo jëlee lamb 500000 bu ko ci ba 10 millions. lamb ji jeex na fan la amee woon stade municipal bu Mbour ku ko jël Abdoulaye Wilane Ndoye Grand Mbolo moo ko jël ci eh, Mamadou Moustapha Sène ñu naan naan Sëlëmale Campement jërëjëf Aliou Mbaye jërëjëf TFM. jërëjëf Luc Nicolaï jërëjëf Mbaye ak Louga jërëjëf Mor Ngom jërëjëf supporters yi